li man tanalun ana ko moom gent boo xam ne ab sartu gis naa ko fa shajaani mu jàqaloo ma te xatti zaburin mu mel ni bindab téere fi asibin ci xab tàndarma yamaani bi ka jóg yaman de <clears throat> dañ naan baaxoo barab buñ miinoon bu demee ba gent ñëw di laajte ku moom barab bi mu mel ni xamatuñ sax ay borom loolu lépp day wane jéggi doyog ràpp gi barab bi ràpp barab xool muy naat mboolem luy taar nga gis ko fa tey nga ñëw gisoo fa dara day mel ni gaa yi moomu gaa yi fa dëkkee woon dëkkee wuñ dëkkee fi woon de day mel ni daal xàmmeetoo ko loolu la bëgg a wax de ne barab bi ràpp na baqamatuma ko nag may laajte ana ku moom gent bi li ma ni talalu ku moom gent gent boo xam ne ba ma ko gisee dama tiit waaw mu rapp ba mel ni bind ab téere ci yaxab tàndarma buy ko jóg yaman waaw ni bind yooyu di rappee noonu la barab bi rappee rek laa wax de <coughs> manam jeexit yaa ngi fa gaaw waaye rapp na lool mu ne ah wallahi sama gaa ñi ñëw fa dëkkee woon dëgg-dëgg ay kër la li hind ñeel hind wa rabaabe ak rabaabu wa fartana ak fartana layaaliya naa fàttaliku suñ ya. binnax fi ca mbartal ma mooy suufu doj wa min badalaanin ca barab bu ñuy wax badalaan mu ngay tontu boppam nag ne ko ràpp na lool waaye xam nga ne di këri hindi la de këri rabaab la këri fartana jigéen ñoo xam ne daan naa foog ñoom ca suufu doj ca barab boobu ñuy wax rab badalaan de <coughs> fàttalikul bis yooyu ak guddi yooyu weesu yooyu layaaliya fàttalikul guddi yi nga xam ne yadoon yi ma ngi may xoo alhawa banneexu ban mbëggeel foo jiibu ma di ko wuyu wa ayunu man ahwa tëbbati kama sopp rawaanin way jalañu ila ye jëm ci man day rawaani jëmo raaniyetun mu ne fàttalikul guddi yi nga xam ne sama mbëggeel rek laa toppoon foog yi ma xoo rek mu wuyu ko ca topp mbëggeel gi rek di foo rek dégg nga te jigéen ma bëggoon ñoom it ñoom bëggoon nañ ma lool saa su nekk ma rek lañ doon xool gisuñ keneen ku dul man fàttalikul guddi yëma daan nekk ak jigéen ñooñu rek laa de <coughs> ndeysaan mu ne fayin um si bu ma gontee makruban di kuñ jàqaloo jàmbaar yàgg naa wax li yaa ruba buhumatin bëri na mbir mu lamu moy musiba boo xam ne kenn mënu ci dara kashaftu wuññi naa ko de isa mas wadda jamono bi nga xamee ne ñuul na wajhul jamaani jabaani kanam ak tappet mu ne bu fekkee tey am na ay jafe-jafe am ay njàqare nekk ci ay problème na leen xóor ne mbir yàgg naa lënt man ma leeral ko de jafe-jafe yàgg naa wàcc ma fexe ba nit ñi génn ca ci jamono boo xam ne ni tàppar yaa ngay daw seen kanam yi ñëkk ndax ragal maanaam mbir yàgg naa ñëw tàppar yëpp dellu gannaaw man ma xuus ca mbir ma ba dindi jafe-jafe ba de kon tey bu ma amee jafe-jafe it yàgg naa def jaloore wayn um bu ma gontee makruban di kuñ jàqloo fa yaaru ba xaynatin bëri na jaam jigéen bu mën a way xaynatin mooy jaam buy way mun a amatin kada kañ xewalal ak yaram amaltuwa liggéeyloo naa ko bikiraanin ca xalam ya de mu ne bu dee tey dama am njàqare yàgg naa bànneexu ci àdduna de ndax yàgg naa am jaam jigéen yu rafet yuy way yore yaram yu baax ma di leen liggéeyloo ñi ñuy way xalam yi di ma wayal rek laa wax de dafa bëgg wax ne boo xamee njàqare tey yàgg na am bànneex laa ñeel na jàmm boobu misarun ab xalam yaalu dana kawe alxamisa soldaria xam nga soldaar dafa am juróomi wàll ndeyjoor càmmooy ñi nekk ci kanam ñi nekk ci gannaaw ñuy taxaw ci digg ba moo tax ñu dégg ko alxamis ndax juróomi wàll yooyu de eh, bi sawti ca kàddoom ga ajasu kàddu gu xaj kàddu gi aji dee maanaam kàddu gu nos daal ba mel ni lu dee isa ma xarrakatu bu ko yëngalee al daani ñaari loxee de mu ne jaamam boobu amoon na xalam goo xam ne bu xare bi tàngaan daf naan yëngal xalam ga kàddu gi fa kawe kawe armée bi yëpp ñëpp di dégg kàddu ga rek laa wax de bu ko yëngalee ñaari loxo yi dafa mel ni kàddu gu nos googu neex lool xare bi yëpp di ko dégg yàgg naa am jaam bu mel noonu rek laa wax de mu ne wayen um si bu ma gontee makruban di ku njàqloo tey fa yaa rubba xaaratin bëri nag lokki lokki mooy ak songu dégg nga boo xam ne fekkee naa ko de ala aqaba ci kaw fas wi aji xoos biir rax wi libaani bi aji yaatu dënn rek laa wax de mu ne bu dee tey dama am njàqare ba mënumaa teewee xare yi yàgg naa teewee xare de yor fas yu baax yu yaatu dënn def jaloore ala rabisin yàgg naa teewee xare ci kaw fas yaa ji gaaw rabis mooy fas woo xam ne ni <clears throat> wu xoyof la ta gaaw yes daaru dana doole ko af wan ak daw isa jëra ndem daw na de misaxin fas wi aji yoolaa koon maanaam bu gaaw lool xasiisi rakk bi fas wi aji soññ euh, fas wi aji tat ak ak de wasa alaani ak cal wala xasiisi rakk bi fas yu aji gaaw ak daw wasa àllaani ak cal rek laa wax de mu ne bu fekkee te am naa njàqare yàgg naa war fas wu xoyof gaaw fas woo xam ne ni bu dawee rek daanaka la nga soxla wut ci daw sax dana ko ci yokk mm-hmm. noo bëgg mu dawee daal mu yokk ci dara mm-hmm. fas wu gaaw mel ni kuy ndox muy yool mm-hmm. fas woo xam ne nii buy daw daw bu boo ko soññee dafay gaaw lool buy calit cal gaaw lay daw lay lay lay lay yàgg naa war fas woowu asis mooy ku xiir daal rakk du mooy kuñ boo ko sojjee boo ko sojjee rek dafay xiir di daw bu baax buy calit noonu sa alaan mooy cal de boo yàq di dana daw moom fas woowu alaa summin ci weeyi aji kukku mooy weeyi aji dëgër silaabin weeyi aji kekke malaatisin weeyi aji dammu waaw xeer ya sadiidaatin sadiidaatin ku aji dëgër fas-fasu wëq maanaam tànk yi sidit dafa dëgër lay naatil masaani ku aji nooy ñaar ñaar masaani mooy ñaari xoomi kanam yi ak ñaari xoomi gannaaw ya loolu mooy masaani de loolu daf koo nooy le dégg nga ñu ne lay naatin fas yu aji nooy xoom yi mataani yi aji dëgër jëmoo matin am na ñuy def mataani yi mataani mooy jëmoo matin de mu fas woowu wey yim yore dafa dëgër lool xeerum dëm dëgg rek nga daal di dammu fas woo fas la woo xam ne wëqu wëq yi maanaam tànk yi dafa fasu fasu bu dëgër fas woo fas la woo xam ne xoom yi ak xoom yi gannaaw yee kanam yi dafa nooy wala nga ne fasu dëgër ay cër la rek laa wax de fasu mel noonu yàgg naa ko war dem ci xaree de waxay sin bëri na <coughs> dégg nga mu ne mi ci cébét gi rek laa wax de ubin ci aju ñuul tilaawu ay xuram tabatantu biirlu naa ko mooy dugg naa ca biiram bi chey ci fas wi aji gudd salataani fas wi aji gàtt karaw xam nga loolu tàgg la ci fas maanaam porlu mooy barab naat bëri na barab bu naata naat nekk ci xur gàncax ga ñuul kukk tawab ceebét wàcc fa mooy taw bi njëkk a wàcc ci kaw suuf ma dugg ca biir yore fasu gàtt karaw mm, dégg nga gudd lool yàgg naa def jaloore yooyu de mikarin fasu aji xokk xàkkaakoon fasu rafet xàkk daal mifarin fasu rafet daw muqbirin fasu rafet jublu mudbirin fasu rafet dëddu bu la waree kanam taaru bu la waree gannaaw taaru buy daw taaru buy songu taaru maan mboolem seen lu def rek taaru de ka tey si dégg nga fas wi noonu la mel de mu nekk tey si dibaayil xulla bi daf mel ni si kitab kéwali xullab ya dégg nga xullab gàncax la goo xam ne kéwal yi dañ koo bëgg lool kéwal yu koy lekk nag xam nga ne mooy kéwal yu baax de al dégg nga gazawaani yada way gaaw wala al adawaani yada way gaaw wala al azawaani yéda way sawar fas wi bu songee day rafet bu dawee day rafet bu jubloo day rafet bu wanee gannaaw dafay rafet nga ne ko bon fas la mu ne fas la woo xam ne ni nam sawaree ak nam gaawee nam rafetee dafa mel ni kéwél yu góor yi nga xam ne dañuy ah, sàmm ci gàncax ak xullab waaw te gaaw lool wala te sawar lool rek lay wax de boo defee alxazawaan tomb xayn gi ak zaal gi mooy yu gaaw boo defee alxadawaan bañ leen tomb ñoom ñaar ñëpp mooy yu gaaw ba tey ku gaaw daw boo tombee nag zaal gi bàyyi xëy gi mooy alxadawaan mooy bu sawar rek laa wax de isa ma jënam naahu buñ ko wetalee mooy buñ ko xammatee ci weneen ci ci beneen fas ci wetu beneen fas dañ laan war fas ñoom léegi xammat benn taaw wada sëgg mat na woo gannaaw ga de kaxer xirru xaamaa mel ni dégg nga hmm, dégg nga renep gàncax ak ruxaama gàncax la rek goo xam ne dafa am ren yu nooy waaw ihtaza gësamu na maanaam yëngatu na fil hatalaani ci dooteeku taw ba hatalaan mooy taw bi dooteeku rek de gàncax ak ruxaama ren yi num nooyee noonu di sëgg fas yi boo ko xammatee ci weneen wetu fas noonu lay sëggee waaw ngir ngir sawar maanaam dafay sëgg kë tiitaru daal comme ni fas yooyu def rek laa wax de yàgg naa war fas woowu kon nag tama na nga bànneexu yow min a duniya ci àdduna dafa innaka naka yow faanin aji jeex nga de déedéet walaay waxul dëgg min nasawaati bànneexul si sàngara ya kon ni ak jigéen ñi ale saa ni ñëre way rafet de <coughs> jeexoo de fa nga jëm moo gën a lu fuuf fi nga jógee kon nag góorgóorlu ci àdduna fa innaka naka yow laa qin aji daje nga ak sa borom loolu waaw minel bii di mu ne na jong na nga na ci jong ma yu weex ya yu weex yaram ya kal aaraam yi ba mel ni kéwél ya wal udumi ak jongama yu zone yaram ya yi xam ne dañoo xeeral kat duma rafet ba mel ni ay nataal mooy ay dessin de xawaa si ne a na ci way sangew yi mooy ñëy wattu seen bopp wal mubriqaati ak way jàggóor ña arrawaani eh, wa mubriqaati ak way génn ya arrawaani ñi de way jagóor ñi de mu ne daal jigéen ñu rafet ñi ba mel ni kéwél weex tàll ak ñu zone ñi rafet ba mel ni ay nataal jigéen ñu téye seen bopp ña ak ñuy génn di xool góor ñi téewuñ seen bopp ñëpp na nga ci bànneexu de loolu daal ko koo xam rek baax na mu ne mubriqaat mooy ñuy génn di daje góor ñi amin zikri nabhaaniyatin man ak fàttaliku ko jug na xaan xalla wàcc na ahluha ñoñam mala ci lunku lunku ci xuru dégg nga dégg nga ci ci suuf sa mala mooy mastawa minal ardi waaye fii danay firi mala barab la bu nekk ci banu asad kon mën ngaa mën nga koo ñaari firi de ci lunku lunku suuf sa maanaam fu suuf si xur wa dogee wala nga ne bi jisin mala ci xurub mala ay naaka sa ñaari bët yi tab ta diraani ñi ngi gaaw wala nga ne ay naaka ndax sa ñaari bët yi tab ta diraani ñi ngi njëkkalante di tuur ronkoñ a ay naay ndax sa ay naaka ndax sa ñaari bët yi tab ta diraani day njëkkalante di tuur ronkoñ min zikri nabhaan yitin ngir fàttaliku ka jug nabhaan de jigéen ji nga xam ne nabhaan la bok ab kuréel la xal la wàcc na ahluha waa nabhaan bijisin mala ci lunku lunku waaw xuru mala dégg nga ndax looloo tax ngay jooy de gis nga façon waxin léegi mën na ko wax ci yàlla amin zikri nabhanatin xalla ahluha bijisin mala aynaka tabtadiraani ma nax da ngay jooy ngir nangam façon uslub bu rafet la ci wàllu ci fa damu ma ñaari ronqañi bëri yooyu sak aji sotteeku la wasaxun aji yool wa mutu aji sax la di soteku warashun aji ñep ñepal la wata mana aji eh, wisla, la mën nga fi warashun aji wisla, la wa aji ñep ñepal la moy luy soti lu tut wata namilani ñi ngay yol de desa, mu ne si ñaari bari joye na nu ne la bëgg wax bu dee joye ak sak bu muy soteku ma koy e def bu dee saxu muy toq koy def bu dee joye go xamne dafa melni taw bu sax di sotti ndox mu bari ma ngi koy def bu dee génn ronkoñ yoo moo xam ne dafa mel ni luy wis ma ngi koy def bu dee génn ronkoñ yi tuuti rek léegi def na ko bu dee ak yool ma ngi koy def rek la wax de si ñaari bët yi mu ne jooyee na ko ngir fàttaliku ndaw soosu dëkk na baxaan mu ne ka dafa mel ni ñaari bët yooyu mazadata mutaajilin ñaari baag yi aji yàkkamti la baag mooy lañuy def ndox rek di ko roote fari yaane yéda yoon dog maanaam yéen ñëw léegi nii lama tuslaqaa diwooguñ leen sax bi dihaanin ci ay diw jamo duxunuñ de sa bët yi na muy tuuree ronqañ dafa mel ni baag bu bees nga xam ne léegi lañ ko ñaw nii def ci ndox nag diwooguñ ko defaraguñ ko ba mu baax xam nga dañ naan defar baag bi diw ko ba mu ba mu ba mu fat bii nag sax léegi dañ ko ñëw daal di yàkkamti rek def ci ndox ni ndox mi di tuuroo tuuru gu jéggi doyoo noonu la si ñaari ba di di de. <coughs> dégg nga waqaala wax na ay ren ba tey ne fa taxaw leen yéen samay ñaari àndandoor yi ki ñu jooy min zikra xabibin ngir fàttaliku soppe soo soo ab soppe waxir faanin ak barab yañ xamoon de waras min ak fàttaliku ay jeexit yoo xam ne afar ràpp na ayaatu ay mandargaam mundu azmaani ndippi ay jamono mu ne yéen samay ñaari àndandoor yi taxaw ñu jooy suñ soppe bi ak barab yi nga xam ne yàgg nañ fa doo xam ko lool nañ jooy fàttaliku jeexiti barab yi nga xam ne nii dippi jamono ji yàgg la ràpp boo demee doo fekk sax benn jeexit atat dikk na xijajun ay at baadi sama gannaaw aleyha ca barab boobu faas baat mu mujj ràpp ka xatti zaburin mel ni bindab téere fii masaahifi ruhbaanin ci kaamini labbe ni téere eh, labbi ràppe noonu la barab boobu ràppe rek laa de nga ne ko lu ci barab boobu mu ne zakartu fàttaliku naa bihaa ci barab boobu alxaya gàdd ga aljamee gaa ji dajaloo faa ye jël mu dal di jeq aqaabila suqmin ndesitu feebar jamoo qubulun min damirin si sama biir xol waas jaani ak mu jeqi ay waas jaani ak ndesitu njàqare mu ne fàttaliku naa mbooloo mi nga xam ne ñoo doon dajee ci barab boobu aljami fii mën a almujtami bu ma fàttalikoo gaañe nag feebar gi desoon sama biir xol bi daal di génnaat muy feebaru njàqare de tiitaange ga desoon sama biir xol bi daal di jéqiwaat de moom la sëriñ bi wax tazakkartu wa zikra yu kaddiru liyal maxyaa fàttaliku naat te fàttaliku day neexal sama dund ndax boo fàttalikoo soppi yi bëgg a jokkoo ak ñoom te jokkoo ak ñoom rek dund bi neexati rek laa wax de moom it loolu la wax fii rek de fàttaliku naa jamono ba gaañi da ci barab boobu ba ma ko fàttalikoo nag jàqare yi nëbbu ci man ak tiitaange yëpp daal di génnaat mënatuma ko nëbbu rek laa wax de fa saxat mu daal di yool du mooy sama ronkoñ firidaay sama làmbaay kannaa dafa mel ni moom ku daax la mooy luñ daax mooy luñ ñaw min soay bin ci mbuus gi aji ràpp zaati saxin yee borom ak yool wa taxtaani ak dotteeku mu ne ba ma fàttalikoo soppi yi dajee gën dajee woon ca gàdd ga mënatuma téye sama bopp sama ronkañ yaa ngi tuuru ronkañ yaa ngi mel ni mbuus gu ñaw mbuus gu ràpp ñu ñaw ko loo ko ñaw ñaw mu bënn rek laa wax de di sotteeku di tuuru boo si defee ndox muy mbuus googu di sotteekoo noonu la sama ronkañ yi tuuroo de bu fekkee gàdd gi nga xam ne ay nit lañ woon dajee ci barab ñoom ngay fàttaliku mm. ronkañ yi ndax mënoo mënoo jokkoo ak ñoom loo xam nag ci barab yi jamono yi nga xam ne lépp ngi dajee ci xadara bi yàlla ba rek laa wax de nga bëgg a delluwaat ci xaal boobu mënoo mënatoo cee dellu fàttaliku gàddu googu war naa tax nga dëkkee jooy rek laa wax de jamono ji nga xam ne lépp wisaal la amul infisaal lépp ak mat la amul wàññeeku de yàlla yàlla delloowaat foofu isal maru nit ka lam yaxsun dencut xale ci kawam lisaanahu làmmeñam falay sa nekkut bi xasdaanin di denc ala cheyin ci dara si waawu lu dul làmmeñam de nit bu fekkee mënul suturaal boppam bul yaakaar mukk mu suturaal keneen maanaam bu fekkee doom nit làmmeñam bi wëttut mbootam boppam lam yaxsun wëttut alayhi ci boppam lisaanuhu làmmañam maanaam nit bu fekkee wëttut secret boppam fa laysa ala shay'in siwaahu bi xazaanin du du wëttu secret keneen ndeysaan muy fàttaliku nag ba nga xamee ne jox nañ ko yére bu ko bu am tookee yaram bay daggati ko jaabir daal di ko laxasam ga maanaam ca tàgg tàdd ga rek de mooy bant yi nga xam ni fa dañuy teg ku feebar moom lay fàttaliku ne fa imma taree nii ay boo ma gisee fii rixaalati jaabirin ma nekk ci laxasab jaabir de rixaala léegi mooy lal yi hôpital yi ñuy teg malaat di ko xommat di ko yóbbu ci saal waaye bu njëkkoon ay bant lañ la lay teg di ko yóbbu boo ma gisee nag ci laxas ak jaabir ala xarajin ma nekk ci tàdd mooy lal bu ñuy teg néew kal xari mel ni jagaajal tax fiqu ma ngay fër yi ak faa nii samay yére ndeysaan mu ne ay keroog boo ma gisoon ma nekk ca banti jaabir ya ñeenu ma teg ma ca tàdd ga nag tàdd gaa ngi mel ni jagaajal sama yére yi fër yi boo ma gisoon ko nga gis mbir mu rëy de moom lay wax ne fa yaa rubba makrubin bëri na kuñ jàqaloo karartu xàkk naa maanaam song naa war waa ñun bëri kuñ jàpp fa kartu xob xob bi gëx gaanu ci moom fa faddaani dégg nga mu jotee ma bakkanam ndeysaan fu temps yi ay béytu yu solo nag lii la nit di war a ndamoo lu baax waaye nag jullit moom du bàkku mais nit dafa war a def lu baax daal dafa war a bëgg def lu baax daal mu ne bëri na ku am njàqare tiit lool ma wàcce samay gawar ci gannaawam ba dindi njàqare bari na kuñ jàppoon xeew ko ca doq ga ma dindi lañ ko xeew dégg nga mu yëkkati alalam jox ma ngir jotee ma alalam wala mu ne ma dëgg-dëgg yow ji naa la sama bakkan maanaam lu la nar a dal naa dee sax moo ma gënal defal naa nit loo xam ne nii mu dee sax ma dund jaral na ko loolu la bëgg wax kon boo ma gisee ci tàdd googu it waaw fàttaliku ne yàgg naa def loolu rek la bëgg a wax de loolu lay tontu ko ndaw yi dëgg ndaw dëgg nag bu ko waxee ah, mooy ndaw yu tedd xat baastu yebal naa leen bi sóoratin ci njël mooy ci fajar fa qaamu ñu jóg jëmeen mboolem seen bay na aasin si diggante aji làmbatu wana suwaane ak aji mànd ngir mànd ngir de dégg nga yàgg naa nekk ay ndaw yu baax yu tedd fajar teel ma xëy leen pour ñu naan sàngara ñi jug naan ba màndi wala nga ne déedéet wax loolu dafa bëggoon a yàgg naa fekk ndaw ñu tedd fajar teel maxee pour ñu dem songi noonu rek laa wax de ñee ñee ngi làmbatu mel ni ku gëlëm ñee ngi màndi ci gémmantu maxee naa leen loolu nag moo gën a rafet moo gën a rafet naa ni sàngara de alxaasi mën naa nekk alxaasi mën naa nekk borom sara bi nee na mooy kuy làmbatu ci guddi te gisut cosaan li ha is la ha moo doon cosaan bi <coughs> waxar kin bëri na àll bàyyi din bàyyi sori xat xataantu dagg naa ni yaatoo ak soreem ala zaati lawsin ci fas wi aji dëgër saxootin machi ku jàppandik dox misaanim fas mu mokk de <coughs> mu ne boo ma gisee ci kàddu jaabir googu ma feebar mënatuma dara sama yëri firfiri xamal ne jàmbaar dëgg moo nekk nii yàgg naa dog àll gu sori yore fas wu dëgër woo xam ni dox gu mokk la daan dox gu rafet <clears throat> waxay sin bëri porlu mooy barab bu naat ka alwaayil fanaa mel ni melooy garab yi fanaa fanaa garab la goo xam ne nii dafa na tëx te xiwal rafet lool noonu la àll ba mel de xanaa ba tuwa wàcc naa ko taxaw na dimbalante na beneen yeneen yeneen xasida ne taawara wuutu wante na fii ci moom kullu aw tafa bépp niir wi aji yooru xam naa nii gi aji dënn bëri porlu muy barab bu naat bu mel ni garab yi fanaa ma wàcc fa niir yee dafa sotti rek ànd ak dënd bu rëy yàgg naa fa wàcc nag ala hay këriñ ci fas yu aji rëy yonti yi ga dana la jox afaan yi na jëriñ fan ni daw xabla suwaal yi koy laaj xëy na kasin fas woo xam ne du ngëbu du jàngoon nañ ko wala waanin du caagin aji doye di fas wu rëy woo xam ne li nga bëgg ci daw balaa nga koo sax fas wi def ko fas woo xam ne doon ko ali mukk muy ngëbu fas woo xam ne du doye di mukk jàgg naa ka war dem ci barab yoy de kon boo ma gisee si ak jaabir bi da ngay xam ne waa jàmbaara daan rek de ka tey si si bàyyi maa ngi mel ni ci këtëb kéwal ga alhamfari gaa ji weex in darajat faq na faq mooy jugee ci kaw pour daanu ci kawam lawu jëm ci moom uqaabun ay baaxaañ tadalat yooroo tadalat min samaariqi sahlaani ci njubbi waaw doji sahlaan doj la nekk ca Madina dégg fas wi gaaw gim gaaw daal moom lay niru léeg sikkat bu weex boobu kéwal bu weex boobu bu fekkee xob mi da ko bëgg a jàpp nii kéwal gi di gaawee <clears throat> dégg nga noonu la fas wi gaawee rek laa wax de wala nga ne eh, eh, xob woowu ni mu gaawee noonu la fas wi gaawee boobu nag mooy gën a gaaw dafa mel ni kéwal gu weex googu nekk ci suuf xob mi daal di faq mooy jugee ci kaw pour daanu ci kaw <coughs> ni xoboo gaawee noonu la fas gaawee de waxarqin bëri na àll ka jëw fi ayri mel ni jëw fun ayri jëw fun ayri ñu ne barab la dafa wéet wala nga ne ka jëw fi ayri comme biiram mbaam ndax biiram mbaam loo am njariñ nekkut ca <coughs> xafrin kay payangaan mooy dara nekku fa ma dëllatin kay réeru waaye barab boo xam ne ku fa dugg daal katatu dognako bisamin si faswi aji yekkatiku sahimin waji faswi aji new waw kanamu yappu kanam wala sahimin waji faswi aji soppeku kanam de fossani faswi aji taru berina allah bu wet bo xamne ku fa duggu reer amul lenn lu lay gindi man faale wuma danse ga fa nekk de war naa faswa xam ne ni kanam nga dafa soppeeku ndax yàpp yi dem na ba mënatoo koo xàmmee fas wu rafet bind waaye daal di rëy de war naa ko dugg ci barab rag lu boobu de kon boo ma gisee si tàdd jaabir bi da xam ne lu waaye jàmbaar jàmbaar bis dana ko dikkal de <coughs> yu daafew dana jënanteeg moom fas woowu entaafal mataaya walla war waaye biru ku nii ca mbaggam ba dégg nga kama nu mu jengee xusnun banqaas naaimun bi aji nooy fawqa axsaanin ci kaw ay banqaas ni banqaas di daanoo ci kaw banqaas ndax nooy gim nooy fas woowu bu xare jutaan bañ war ko gëlëm yi nekk ci wetam nag da ngay gis muy jël mbagg yi ndax sawar rek laa wax de <clears throat> wa majrin bëri na soldaar gi aji direeku ka xulla anil unayim mel ni xurëb unayim alxurlaan mooy xur wu bëri garab jamu waa jamu la mufrad bi xaalin la une im turu barab la de baalixin gaa ji jot moom kare boobu diyaaran addu wi kërum noon ya di zuhaayin kay borom mbooloo waar kaanin ak ay ponk de maanaam ay wàll bëri na xale bu sëq xumb lool bëri ba mel ni xuru une im nim bëri ay garab xare boobu faw ñu gi ci kër yi noonu ya <clears throat> kenn xamul daal limam ndax bëri gi mu bëri waaye daal am na am na nit ñu doy rek laa wax de lépp lu xare am daal war na ko am am na ponk mooy am na kanam ak ndeyjoor kanam ak gannaaw ndeyjoor ak càmmooy ak digg loolu mooy bu arkaan <clears throat> ndax ponki xare yooyu la <clears throat> bëri na xare bu mat bu bëri mbooloo matawtu tàllu naa bihim ak ñoom xataa takilu ba mu lottu matiyum seen warawaaya waatal jiyaadu ba naaru góor yi sax maa yuqat nag jërutuñu leen xommat biar saanin ci ay buum mu ne ànd naag ñoom di dem di dem di dem ba seen waruwaay lot lot nañ ba nga xam ne naaru góor yi gën a baax boo leen xommateeg buum sax mënatu ñoo dem ndax sonn lu mu bëgg a wax yàgg naa doon jàmbaar ànd ak xare yi dégg bëggaay sonn maanaam boo ma gisee si tegu jaabir bi bul yaakaar ne damaa doy di de def naa lu ne waaye nattu moo du wees rek de waata tara ba nga gis aljawna mënguma mooy fas wu ñuul wa wala aljawna fas wu weex wa wax naa ne ma naa ñaar ñaari yëpp ñaari melokaan yëpp allazi bi nga xam ne kaana nekkoon na baari nañ di aji suur ala yi nekk na ca kawam awaa fin way xaaraan min nu suurin ci tan way baa ne na de ndeysaan mu ne dox naa di dox di dox di dox ànd ak soldaar ya ba sama fas wu suuroon wii mujj dee baaxaan yeeg tan di ko lekk di ci xaaraan dégg nga ndeysaan maanaam yàgg naa am coono rek la bu amee coono yàgg naa doon jàmbaar yàgg naa def jaloor rek la bëgg wax de xam nga natt du wees waaye da nga doon jàmbaar ba koy mën loolu la bëgg a wax te bëgg wax ne bu jàmbaar daanoo it yàgg naa def yàgg naa def jëloon rek pourtant xasida bu am solo la de te gis nga façon bàkku bi ñoom ñu mën a bàkku la bu nee ba doye di seen dara normal tut seen xasida yi ci la ñuy defaraate lépp <laughs> ay odoba lañ daal إن أريد الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته